bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi teelu Istikhama bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi ngeen ànd ak ñun bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi jiital ci ziyaar bi Cheikh Sidil Muxtaar ñu ngi ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te may ko wér mook mboolem njaboot ak boroom Tuubaa gi yëpp bokk yi ñu ngi leen di indil euh, bis bu mag di màggalu daalu Islaam Danki daaru islam danki nag euh, buñ ko waxee ku ne xam na ne bokk na ci pàkki Cheikh Moustapha al Karim euh, loolu nag ku ne xam na ne bi ñu fay dem tamit ñi ngi romb dëkk yu tedd yoo xamante ne bii mën na see jàpp daaru rahman gis ngeen ko noonu waaye tamit bi génnee daaru rahman ñëw ba njurul waaye biñ ñu génnee njurul rek ci lañ dog yoon wi jëm daaru islam danki daaru islam bangi nag euh, Serigne Moustapha Mbacke ibnu Serigne Fallou moom Serigne Moustapha Mbacke xaadimu rasul mooy fàttaliku waajuram wu tedd woowu di ko ci ñaanal bi nag euh, Serigne Moustapha moom Serigne Fallou moom Serigne Modou Moustapha moo ci ñaanal waajuram wu tedd wa di ko ci fàttaliku waaye ànd koog mboolem njaboot ak Serigne Moustapha al Karim waaye tamit ànd mboolem njabootu Cheikhul Khadim yëpp euh, ku ne xam na ne tamit bi ñëwee ci daarul l'islam danki euh, fekk nañ fi bokki jullit ak bokki taalib yëpp ñoom ñëpp maase ñëw ci bis bi fu ne mbokki taalib yi jóge fa ngir teewe bis bu tedd boobu waaye dañ koy ànd ak yéen ci ziar yi nga xamante ne bii bokki jullit ñu ngi koy ziare Serigne Moustapha bokki boppam yi tamit gis ngeen ko noonu ñu koy ziare waaye tamit bis bi doon bisab cant doon bisab ñaan doon bisab fàttaliku kenn ci njaboot ak Cheikhul Khadim gi kon mbokk yi ànd ak seen site istikhama point org yéen a ngi ànd ak ñun ci màggalu Darou Islam Dangi lépp loo xamante ne bii soxal na fa ci programme waaye tamit lépp loo xamante ne bii euh, xew na fa ci wàllu programme dina leen ko indil. fa ku ne xam na ne euh, bis bu tedd bi nga xamante ni bi ci la ñuy fàttaliku Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Mouhamadou Moustapha euh, programme bi nag euh, tàmbale nañ ko ci njàngam alxuraan gis ngeen ko noonu njàng mi nga xamante ni bi bokk jullit bokk taalib ñoom ñëpp ñu ngi commencé jublu la di jàng alxuraan xanaa dañuy ñaan rek lépp loo xamante ni jàng nañ ko fa ci alxuraan suñu borom nangu ko waaye tamit feggoog njàngam xasida waaye tamit saafonte fi gi nga xamante ni bokki boppam yi ñu ngi ñëw di ko ziyaare Eh, loolu tamit ku ne xam na ne ziar yu am solo amal nañ ko fa ci kanam Serigne Moustapha Mbacke kon mbokk yi programme bi nii lañ ko xëyee di njàngam alxuraan bi nga xamante moom ngeen gis noonu ñu koy xëyee programme bi di ko jàng di ko ñaan tamit suñu borom jottali yool bi Serigne Fallou moom Serigne Mouhamadou Moustapha. bi xalqi jof euh, ginnaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax a baax bokk yi teewlu istikhama point org euh, gis ngeen ginnaaw njàngam alxuraan bi dañuy doxantu tamit ba euh, li nga xamante ne bii sëñ Moustapha waajal na ko ci wàllu bernde ku ne xamante ne bisab cant ak bisab ñaan bernde lu am solo la ci moo tax it gis ngeen ñooñu nga xamante ni ñoo yor wàllu bernde yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax daayira yi ak organisation yi nga xamante ni bis yu mel nii lu am solo la ci ndax ku ci nekk yaa ngi takk sa ndigg takk sa laxasaay ngir berndeel gan ñi gani Sëñ Tuubaa yi nga xamante ne bi ñëw nañ fi ci bis bi loolu tamit lu am solo la kon ñu ànd ak yéen eh, indil leen lenn lu jëm ci wàllu waañ wi nga xamante ne bi bokk jullit ña nga fa féete woon di li fa liggéey liggéey bu am solo la jërëjëf bokk yi gis ngeen ko noonu euh, bokki jullit ak bokki bi fu nekk euh, waaye bàyyi bàyyi koo fa ñëw ci bis bi ngir ziyaari Serigne Moustapha ci bis bu am solo boobu muy fàttaliku waajuram wu tedd wa gis ngeen ko noonu bokk yooyu nga xamante ne bi ñu ngi ziyaar sëñ bi ñu ngi ñaan rek suñu borom nangu leen seen ziyaar waaye tamit di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mu yàgg taxawe bis bu tedd bi nga xamante ni ci la ci ci la ciy fàttaliku euh, waajuram wu tedd wa asalaamaaleykum mbokk taal bi ñuy déglu di ñu seetaan ñoo ngi fii ci daaru islam Danki ci bisu Serigne Fallou Serigne Mouhamadou Moustapha di bis bu rëy ci waa daaru islam bis bee dinañ ko xamee rek ak eh, ni nga xam ne noonu la Serigne Touba digle ci eh, ñu màggale ko bisu eh, gaa yu mel ni noonu rek lañ ko fas yéene dundale te mooy teg ko ci sunna te mooy lan mooy jàng alxuraan ak kenn ko it na xam na ne e, fàttaliku bisu waaju baax dafa baax ndax bu ñu leen di fàttalikoo yërmande suñu dafa wàcc loolu moo tax bi nga xamante ni bi suñu borom dogal na sunu cër Sëriñ Tuuba nekk Cheikh Mouhamadul Fadel suñu borom féetale ko woon fii nga xam ne ci mooy tund daaru islam mu ñëw fi sanc ko e, boole li nga xam ne mooy tund fi nekkoon rek war a juróom-ñaari penc yi Eh, booba léegi itam suñu borom dogal bi mu fi jógee itam bàyyi fi doomam ju baax ji muy Cheikh Modou Moustapha mbooleem koo xam ne yaa ngi askano fii ci Daaru Islam Danki noo ngi ko ànd ak moom di ko màggal kenn ku ci nekk su bis bi ñëwee da nga bàyyi lépp loo doon def ngir teew si fi ci bis bi ñu màggal ko ci sunna màggal gi ñu weesuwut jàng alxuraan ak xasida depuis ñu jógee màggal rek lañ commencé waat di ko waajal ci wàllu culture te mooy fas yéene di jàng alxuraan ak xasida di ko addiyal Cheikh Mamadou Fadil fas ni itam di amal waxtaan ci ngoon gi waxtaan woo xam ne bu nekk day méngoo ak jamono ak li xew ci jamono teg ko ci diine mu mel ne ren ji itam sëñ Mbacke Abdourahmane Lo moo war a def ak ñun waxtaan eh, ci li nga xam ne mooy bis bi. kon daal ñu bàyyi xel ci ne bis bi niñ ko waajale mooy jàng alxuraan ak xasida bañ xëyee ba suñ joonee te itam waa culture yëpp ak membre culture yi noo ngi nii toog ci bâche bi. di jàngi alxuraan ak xasida jot nañ fee am ay lim yu bare bare xëy na lim yi wàcceeguñ ko waaye xam ngeen ne fu daara nekk ci Touba ak Taïf ak tund bi yëpp li ko wër dañuy maase maanaam di jàng alxuraan ngir waajal bés bi loolu itam suñu àggee ci ngoon danañ dajale lépp ba xam ne nangami kaamil lañ fi jàng def ko addee Cheikh Modou Fadil ak way dawlu yi nga xam ne ñoo ko jiitu yëpp ci kaw suuf kon daal bés bi nii nañ ko baaxoo màggale ñoo ngi sant itam ci wàllu organisation bi li nga xam ne mooy euh, wilaya ndax seen taxawaay mën na ci sëkk ba organisation bi lépp baas bi ak euh, organisé bi yëpp ci seen loxo lañ ko teg kon ñoo leen ci sant bu baax a baax kon daal mu mel ne bis bi noon lañ ko baaxee dundalee noon lañ ko euh, matalee culture itam mi ngi sant mbooleem mbokki taalibe yëpp ndax kenn ku ci nekk gis nañ ne niñ jàppee bis bi te mooy jàng alxuraan ak xasida kenn ku ne yaa ngi ci def sa kemtulay kattan surtout daara yi ak gone yi jàngoon alxuraan te génn loolu ñoo ngi leen sant bu baax baax seen taxawaay sant sëñ Mor mi nga xam ne tam moo daanaka mën nañ ne man maa ko jiite waaye moo yor liggéey bi ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci yi ak sant sëñ mag Modou Gueye ak Baye Omar mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp ci bi nga yaa xamee suñu borom dogal na ñu teg gone yi ci yoon woo xam ne suñ ko wàccut incha allah danañ àgg fañ jëm te mooy nekk ay taalibe nekk ay murit li leen ñor rek muy liggéeyal sëriñ bi guddi ak bëccëg kon daal noo ngi taxalu foofu di sant mbooloo mépp ci teewaay bi xam ne kenn desut daayira yi ak ñëpp kenn ku ci nekk teew nga ngir jàpp ci liggéey bi ngir xam ne eh, amuñu lu may daar islam kon lu ci aju ku fi aju koo am koo yëg ku ne ñëw na teew ci ko loolu tam xam nañ ko te gis nañ ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum sëriñ bi noo ngi lay nuyu tey nuyu mbooloo mi nuyu donga yi yi turu suñu suñu kilifa sëriñ Ahmadou Makhtar ak sëriñ Abdou Fatah di leen sant di leen gërëm bu nu jógee ci loolu itam nu tofal la ci di la sant di la gërëm dina la ñaanal itam yàlla fekk saw fan ba naal wi nga xam ne moom la sa waajur wu tedd wa naaloon nga àggale la koo naaloon àggale sa naalu bopp sunu xol sedd na guy ci yow ndax barab bi ni ko sa baay fonke woon ak lim si doon jëf te booba da nga jëf jafe na yàlla dogal mu ñëw fi mu toog muy metti mu ngi si ndigalal sëriñ Cheikh li nga xam ne da moom la ko digaloon boole ko sëñ Modou Aram Gaye mu nekk fi di nga laax man ba mu xam ne sëriñ Cheikh fii ko féetale séddee ko mbooloo mi itam ñu sant leen ci loolu ndax bi ñu ñëwee xamatuñ kenn lu sëñ Fallou bi mu fi jógee itam mi ngi mottali wala ci yow kon yàlla leen yàlla yàggal yàlla na leen yàlla jàppale yàlla leen defal da nga sa bëgg ndax boo amee sa bëgg kenn ku ne xam yaay kan kon loo defoon lu dul rek mu metti waaye nag fii mu nekk mel na ne sëñ Fallou mu ne su ko fàtte waaye nag fii mu ne mën na koo dalal xel ci yow ba tax na kon loolu naa la yàlla na àgg li nga bëgg ci mbooloo mi yàlla la ko yàlla defal ci barkeb sëriñ bi sunu xol sedd na guy ndax fekke woon nañu démb fekke tey xam na na démb meloon kon tey boo melee nii taxawu ko am na nit ñoo xam ne ñu dégg su fekkonte ne am nañ seen yéene loo bëgg rek dañuy xëy defal la ko ndax li nga def wax dëgg yàlla rafet na rëy na kenn foogul woon ne dana am nag fii xamoon nañ ne da def dara sax waaye xamuñu woon ne dana ak si fii kon nag yàlla na yàlla jàppale Mbàkke boole la ak taalibe yàlla bu ñu la defaree ak say bokk ci barke Serigne Touba loolu rek lañ ci doon jottali. ndax bu ñu ko waxee itam ñu xam ko ndax yàgg nañ fee wax ba dara dul dara ba tey de nga ñu ñëw nga dina jox kàddu noo ngi lay sant di la te di la ñaanal ñaanuk taalibe yéen nga dinu ñaanal ñaanuk sëriñ jërë ngeen jëf be rahmatullahi taala barakaatuhu hmm, mbokk yi ñu fas yéenee eh, waxsaan dalal suñu mag yi suñu eh, jëwriñ yi xam ne nii mën naa ne na kër gi xam ne nii mooy kër suñu Fallu Mbàkke eh, te Cheikh Moussa Mbàkke toogal ko fi mën naa ne tey jii léppam mën naa ne nekk ci lépp loxo suñu Mbàkke Madina xam naa mën naa ne bu doon mooy léppam ñu ànd kook ñoom xam ne kat ñoom euh, ay jëruñ leen kër gi waaye mën na ne ñooy ñooy kër gi ndax ñoom lañuy defal ñu fas yéene euh, toog ak ñoom ci njiital suñ bàyyi soxloo daayira di kontaan baax a baax ci bi nag te xam ne ci teewee war nañ ci teew suñ ci teewuti war nañ ci teew ndax seen la mën naa ne ñun suñu defee dañ kaan wax ñoom ñoom lañuy defal xam suñ fàllu xam nga ne suñu Mbàkke Madina la nekkaloon euh, nekk ak moom euh, bépp lu fu mu ko war a taxawee rek taxawee na ko fa ba dëkk bii nga xam ne ko xam ne bu tey bu bu suñu Fàllu nekkee mi ngi jaar si suñu Mbàkke Madina ndax moo ko moo ko digal mu ñëw fi jagal ko ak mag na ko na fi toog wax mag ñi ne foofu nañ nañ nañ ànd ak moom kan mel na kan léppam kan suñu Mbàkke Madina la kan loolu ten su si euh, daayira bi teewee dañ siy kontaan loolu baax la comme nañ saan ndax tax tax teewaay bi te chaque année ñu ñu def ko te macha allah niñ defee nu gën a rafet nañ koy kan ñu ngi sant bu baax baax di gërëm xanaa di wax ne ñaan jàpp rek ñu te te xam ne ñun moom ay xale lañ yàlla jaar su yoon ba fépp foo xam aw yoon la rek ñu jaar fa te xam naa ne ñoom it euh, mën naa lépp si ñoom la ndax ndaxte euh, lu si gën rafet rek boobu sant yàlla ndax xam ko kat ñoom ñu lañ ko xoole kan dañu gën a santal baax baax santaat teew baax baax xanaa dañuy jox euh, bàyyi Cheikh rek euh, kàddu gi mu di daanaka ndax mun see ñàkk it mu soññewaat rek bu ko dee mbooloo mi mbooloo mi gën gën koo dégg gën a bàyyi xel loolu baax baax kan bàyyi Cheikh bisimilah. auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin saydina wa moolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barkeb sëriñ Mbakke Madina sun sëriñ salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen waa daayira al muxlisiin wal muxlisaat bu kër cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Fadal ibnu cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh al Xadim sunu yaakaar yi tey ëllëg noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di leen siyaare ci bis bi muy bis boo xam ne ni nga ko waxee bis bi sunu bisa ndax euh, sëñ Mouhamadou Fadal euh, noonu yi nga ko waxee euh, moom da doon jëmm joo xam ne am na fu ko sëñ Mbacke mën na tegoon maa ngi koy wax léegi ne kii taxaw léegi muy sëñ Fallou di moom sëñ Bassirou Lo moom sëñ Cyril Lo keroog ba mu koy tudd si ci sama kanam la moo moo taxaw fii léegi eh, maanaam yàlla defoon maanaam booba lépp loo xam ne xew-xew la rek moom la ca sëriñ Bakki mën a daan jox ndigal eh, ak rakkam yi nga xam ne ak magam yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak mu bokk ak ñoom Cheikh Moustapha it ñeneen yeneen magam yi ndax ku ne xam ne ne moom moo doon caatum mu Moustapha kon ñi des ñëpp ay magam la ñu woon mel ni sëñ Axma nga xam ne lu mos a xew it moom it ñaare moom la daan woo maa ngi koy wax léegi ne Daaru si yaakaar naa ne kër goo fi dugg boo demee li kër yi ci ëpp danga fekk am sëñ Fallu moo xam ne moom moo leen tudd te bu leen di kum kum mos a ñëw di ko tudd it ka muy tuddal doom jël la ma koy wax mooy sëñ Mourou Moussa bu ma tuddalee see sama sama doom turu yaa ko moom. loolu fekke naa ko ci ay ngénte yu bari yoo xam ne moom ci boppam mu tudd si ko ma fekke ko kon noonee mu menoon eh, dafa di roy waay maanaam moom ñëw rek nekk ci ginnaaw ay kilifaam diglu seen ndigal noonu ko waxee nga ne sëriñ mbakki mën na moo ko jox ndigal mu sanc fii eh, kon lo kooka eh, bisam bisub ñëpp la rawatina nag waa Darou Khoudoss ñun waa Darou Khoudoss ñëpp bis bii sunu bis la ni ma koy faral di waxee rek xëy na yëf yi moo moo moo moo moo moo yaatu ba euh, béréb bu ne euh, ña fa nekk rek dañ fay ne nekkaaleel ñi nga xam nekkaaleel ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër gi waaye su fekkoon ne ne mbooloo dañoo soxla mboolem waa daayira bi ngir ñëw jàpp ci liggéey bi it ñoom ñëpp ñooy bàyyi lañu jàppoon mën a ñëw fekk si euh, ànd ñëw fekk si bis bi ànd kook ñoom ci ci ci liggéey bi lépp waaye nag eh, xat-xati jamono ak it jàpp ne maanaam ñi fi ne looloo danañ ko man loolu xëy na moo tax eh, ñëpp mase wu ñu ñëw waaye ñii teew ñun ñii teew noo ngi teew ci turu suñuy kilifa ndax suñuy jëwriñ muy sëriñ Cheikh Gaynde moom sëriñ Mbacke Madina mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira sëriñ Mbacke Madina ci réew mi ak bitim réew yëpp ak soxna ma Ami mi nga xam ne mooy jëwriñu soxna yi dellu di jëwriñu da fédération daayira sëñ Mbàkke mën nii ci Touba ndax euh, ñu xam ne mooy jëwriñi fédération daayira Touba moom soxna ma ami ci kàddoom la ñuy waxee ak turu jëwriñi daayira yëpp ndax ñoo ngi ànd ak sëriñ Moustapha Kane mii nga xam ne mu ci vice président yi la xam ne ko topp ci man muy sëñ Lamine Sakho moom moo topp ci moom muy sëñ Moustapha Kane ak sëriñ Moustapha Ndoye mii nga xam ne moo yore wàllu organisation ak sëriñ Basirou sekk mii nga xam ne moo yore wàllu culture mooy jiite commission culture ñu ànd ñëw ci turu mbooloo mi ak ñeneen ñi nga xam ne fekk si nañ leen fi eh, ànd ak yéen bis bi di ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo jaboote moom ñëpp eh, lépp loo xam ne def nañ ko ci yiw sunu boroom nongul na ko te tasaare ko ci mbooleem kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluhu te luñ ci def ci racc racc mu jéggal nu ko te yàlla defal nu ko wér ak wérle ba li ñu yéene bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp nu mën koo defee na ko sëriñ bi bëggee ndax mën nañu ne ñu defee ko nan bëggee waaye bu ñu ñaanee defee ko nan ko nan ko bëggee noonu mën naa am nan ko bëggee mu mu wuuteeg bëgg-bëggu sëriñ bi waaye nañu ñaan suñu borom lépp lu ñu liggéey sëñ bi mu dëppook bëgg-bëggu sëriñ bi kon yàlla na ko yàlla defal te yàggal fi suñu kilifa yi ñu yàgg fi lool te ànd ak wér mën naa lii nga xam ne naan lañ ko fa yéene ko liggéeyal seen maam Seexul Xadim suñu borom mooy leen kattan ak wér ak koom muñ ko mën a eggalee eh, ba ba mu dëppoog seen bëgg-bëggu maam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aasbillahi samin alim min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh mi ñu àndal muy kilifa ak mbooloo mi di jéglu bu baax ci kaddu yi di Serigne Cheikh loo wax doy na sëkk xanaa muy kaddu yi ndigal rek di fàttali bu baax euh, li nga xam ne. sëñ bi wax na ko léegi ci eh, sëñ Fallou Mbakkeem Cheikh Mouhamadul Moustapha ni mu demee woon ak sëriñ Mbàkke Madina mu mel ni loolu eh, taarix la ci yoonu murit ndax nañu xam ne bii taarix la ci lislaam sax laay wax dama wax yoonu murit ndax fi mu tàmbalee rek mooy yónnent bi alayhi salaatu salaam bi muy gàddaayee Màkka ñëw Madina Seydina Ali la waxoon moo ko wutu woon fam ne woon ma bàyyi ko fa toppatoon ndénkaan coor yëpp Cheikhna Ahmadul Xadim radiallahu anhu bi mu sanc Touba maam Cheikh Anta la ma yoon joxoon Daaru Salaam féetale ko fa boole ko juróom-ñeent fukki dong ak juróom-ñeent ña ca des ma ànd ñoom. naka noonu Cheikh Mouhamadul Moustapha premier xalifa Cheikh Mouhamadul Cheikhul Xadim bi mu sëñ Abdoulaye jàngee ba noppi kàbb gay la ko jox ne ko neen sëñ Touba ngeen ma toppoon sëñ Touba ngi nii. Sëriñ Mbàkke Madina itam mu ñëwee Cheikh ci ñi at ci njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha bi ñëwee moom it mu gis jëfin yooyu nga xam ne moo fi jaaroon ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ak Cheikhul Xadim ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi waajuram mooy mu tax koog moom noonu mag nettali na ma ne daanaka wax ne ko jéem a jege ma di la seetlu ndax dañ ne da ngaa niroog sama waajur te sama waajuram ñu mos koo ñemee xool kon loolu ci cofee la bokkoon kon dëkk bii bu fekkee ne da ko fi andi déel leen déel ko fi eh, neen mag ñi ñi ma toppoon Cheikh Moustapha fa suñ fàlloo ngi nii kon moom it def na ya nga xam ne moom la xaadimul Moustapha defoon maam Cheikh Anta la nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Moussa defoon ak Sëñ Abdou Lahad kon loolu mooy def na Cheikh na Ahmadou Khadim Cheikh Mahamadou Fadel borom xam-xam bu mag la woon diplôme bi mu amoon wax nañ ne moom ñaar ñoo ko amoon ci réew mi waaye sëñ Mbacke Madina da ko xamaloon ne ko daa am leneen luy sawal lu bokk te lii daa am lu ñu lay liggéeyloo loolee moo tax mu taxawoon na sëñ Mbacke Madina di loxoom ci wàll yu bari fu mu war a dem fu ne mu di ko fa yebal te xam ngeen ne euh, loolu am na ci fànn yoo xam ni day jafe waaye itam ñu dellusiwaat ci bu Cheikh Mouhamad Moustapha di waajur nag boo defee loolu it du du du amoo doo ci kenn du ci am jaaxle ku xam dara ndax Cheikh Mouhamad Moustapha dafa waxoon ne li ma Serigne Touba jox ma war leen ko jox ngeen jëriñoo ko ci li leen tax a nekk benn laay nekk ba ngeen nekk benn ma door leen ko jox. loolu sëñ Mbacke Madina daana wax ne nit ñi dama bëgg ñu mel ni sama péricurus gii ñu àndi noonu kon ci loolu ne woon mooy wax yonent bi moo ne aljamaatu wa rahma wal furqatu wal asaba ne bu ngeen àndandoo nekk benn nag Cheikh Mamadou Moussa addis boobu dafa waxoon ne mooy mbooloo bu ñu àndee nekk benn lu ñu ji man ko kon nag bu ñu demee ba këri Cheikh Moustapha yëpp mel ni léegi seex Cheikh Moustapha lañ teg ci seen kanam kon nañu xam ne ab pajuk aaju mi ngi ba dikk ci nun ñu am ci rafet njort bu baax Serigne Cheikh Mbacke Madina toog naa am wax ne ñi yàlla def ñu dajeeg ànd boobu maanaam amee ci seenu nekk ñoo ñooñu ñu yàlla defal tawféex lay doon kon nag mën nañoo rafet njort bu baax ne am nañ tawféex ci wàllu googu ndax moo mboolem kër Cheikh Moustapha yi léegi ñëpp benn lañ ñoo àndandoo ci lépp kon nag ñu ñaan yàlla dëgëral ànd boobu te li ci yónent bi doyale ci bennoo ak lam ci doyale lañu la ci lislaam doyale ci bennoo sunu borom defal ñu ci barkeb Cheikh na Amadou Khadim mu saxal ci liggéeyal Cheikhul Khadim ak liggéeyal Cheikh Mouhamadou Moustapha kon ñu ngi ñaan yàlla màggal gi lépp yàlla def ci tawféex ak tuyaaba ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyoo di ziar ñun ñooy Abdou di organisation responsable organisation wilaya Taïf ci comité directeur bi jëwriñ ji ñu taxawal mooy suñu Mbàkke Seck mooy suñu adjoint ci section bi ñoo ci topp euh, boo gisee ni ñu taxawee nii sax ñaar tën yi mooy euh, liggéey bi nga xam ne moom la section Taïf di liggéey amut séparation ci benn liggéey ndax yaa gis tani bi nga xam ne moo fi nekk di tani jamaatu muridina sadixina ak tani bii ma sol di tani wilaya ñu section tay benn commission lañ ko def boo xoolee suñ ñaar suñ ñaari bars yu ñu takk benn bars la amul boro kon day wane rek ne section bi moom benn liggéey moom la moo fi am ci section bi euh, fii ñi nga xam ne fi la ñu andi nag di daru islam yàlla dogal mu nekk kër goo xam ne ñun ñëpp dañ fay xemmeem pour ñëw liggéey ci biir kër gi euh, ba tax na biñ ñu wooyee ne ñu dañoo bëgg ngeen defal ñu xewal yi mu doon loo xam ne itam ci lañ sawar lool pour ñëw fi euh, te at mu nekk it yàlla dogal na ñun ñoo koy def ñu ciy sant lool bu baax nag euh, kilifa gi nga xam ne moo fi nekk tey di sëñ ci yéene jooju nga xam ne moom la am ci ñun ak itam li nga xam ne moom la yaakaar ci ñu defal ko ko ñuy ñaan suñu borom ñu defal ko lépp am nañ yaakaar ci ne nag euh, xéewal yi moom mat na ndax euh, ñoom ñoo ñu fi indi ñoo dugg ndugg mi ñoo def lépp waaye itam biñ fi ñëwee itam boo xoolee togg yi ni nga xam ne lañ ko defee rek nga xam ne dara manqué wut ci li nga xam ne waroon nañu koo jox moo tax ñu itam ñu fas yéene ci ñu ci war a def ak niñ ko war a defee euh, dara fasuñu yéene mu manqué fi dara itam fasuñu yéene mu xajam fi loolu mooy li nga xam ne moom mooy suñu taxawaay ci bis bi Euh, yaakaar naa jël nga waañ bi jël nga itam ni nga xam ne noonu lañ toggee xéewal yi euh, loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko ci leeral euh, ci diggante kër gi ñun nekk tey ak fi nga xam ne moom lañ yebale mu nekk genn kër nekkul ñaar lépp suñ mën Moustapha la loolu moom moo tax ma doon jël kàddu yooyu rek di ko wax doon ci leeral daal. ñuy sant yàlla bu baax rek ndax daanaka ni jëwriñ ji matale na lépp rek duñ ñaar benn la kenn lañ ñun ñëpp ñoo bokk luñ bëgg. Ah, defar rek moo ñu yëkkati tamit kon ñoom tamit comme maanaam niñ koy niñ koy waxee rek waa village yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay ci liggéey bu baax a baax baax ndax muy guddi muy bëccëg saa yu ñu leen soññee rek eh, fekk na ñoom ñu jekk bu yàgg kon nag amal na leen ak cant bu rëy di leen kalaameek sëñ bi nag mu defar seen biir te defar suñuy biir ah kon nag sant nañ bu baax a baax a baax ci li nga xam ne daal taxawaay bi daal am nañ ci ak kontaante bu wér a wér a wér kon daal ko doon sàkkoo kawe na suñu njortu lool lool lool kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ndaw ñëpp ñu ngi leen di sant kon gis ngeen ziar ziar kilifa yi noonu kooku ngeen gis mooy Serigne Cheikh Bara Matilay jóge ca xalifa bu tedd ba di Cheikh Sidil Muxtaar mu yabal ko fi wane na ne rek bés bi ci ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar lañ ko amale waaye tamit jaar ci sëñ Ahmadou Muxtaar mi nga xamante ne nii mooy xalifa Daaru Xuddoos ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér kon bokki dañuy ànd ak yéen ci euh, ziar bi nga xamante ne bii gis ngeen ko noonu Serigne Bara Matilay mooy indi ab ziaram jóge ca xalifa général kullu murit di ko jébbal Serigne Modou Moustapha Amen. Cheikh Moustapha ñoo ngi leen nuyu nuyub lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi lay ziyaara bu baax ci bis bu tedd bi muy bisub Cheikh Modou Fadal Mbacké moom Cheikh Modou Moustapha sa waajur di ñaanal sunu boroom yokk darajaam yokk ngërëmam mbooleem donge terbiye yépp tamit ñoo teew sa kanam di la ziyaara ngir sa jëmm ak jëmmi Serigne Touba li waral tamit teewaay bi mooy di sàkku ngërëm ak di sàkku sa ñaan ndax dañoo wax ni fa nadratul xubbi min ashayq ila muridihi hiya al mazaya wal ula sëriñ Tuubaa dafa wax ni bëtu cafeer rek bu jige ci sëriñ bi dal ci taalibe bi dana yokk mayam yokk kayam àddina ak àllaxira kon bëtu cofeel boobu yi lañuy sàkku ci mboolem dongo yi fi teew nga xool ñu bët boobu xool ñu bëtub yërmande xool ñu bëtug ndolleen xool ñu bëtug ñeewantu xool ñu bëtuk ñi am ngërëmal sunu borom subhaanahu wa la lenn ñaar dong leen leen ñaani tamit ci jotaay bi ñu jotaay ak yow di ko ko ci yow nga ñu ko sa darajey maam Sëñ Tuubaa defal ñu ko ñaar képp la muy ngërëmal yàlla ak yërmande sunu borom ñaanuñu alal ñaanuñu barkeb ëddina ñaanuñu dara ñaar yooyu dong leen teg sa kanam di ko sàkku ci yow te mooy yërmande yàlla ak ngërëmam te sëñ Tuubaa moo ñu tànnal ñaar yooyu ne moo moo gën ëddina ak li ci biir riddan wa rahmatan min allahi albadia xayru min addunia uma fiha jamia ñooñ ci sàkku tamit mag ña fekkoon sëñ Tuubaa sar sar te ziyaar ji ko la leen sëñ Tuubaa fàggul ci ziyaar googi ñoo ngi koy séntu ak di ko yaakaar ci ziyaar gi mooy inna ladina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faraqu darin awzara sëriñ Tuubaa nee na ña ma fekkoon sarsaara ziyaare ma ngir jëmmi yàlla tàggoo nañu ak bàkkaar ëddina ak alaxira kon yàlla nag ñu ko fàggul ci jotaay bi donga yëpp teew nañ fi dongay Cheikh Moustapha Mohamed ji dongay Serigne Khadim Mbacké dongay Serigne Moustapha Lo dongay Serigne Cheikh bu ñu limee jum mbooleem dongay takk déer yëpp ngi ci sunu sekkanam toog ñoo ngi sàkku ngërëmal yàlla ginnaaw loolu ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax baax sunu borom yàggal la fi sunu borom dëgëral la ba li nga yéenee liggéey lislaam yéene koo liggéeyal Cheikhul Khadim sunu borom kattanal la ba nga amee ko lu kawe sa njortu tànn kooku waa kër Serigne Touba gépp ñoo ngi leen di ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ñu ndax murit dafa jafe te seytaane dafa bëri doole nga ñaanal ñu ñu doon dëgg dëgg taalibe biir ak biti isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani xaysu xasada ga samaam wax mu nekk ci ñun sunu guddi ak sunu bëccëg sëñ Tuubaa rekk tax sunu guddi ak sunu bëccëg ngërëmal yàlla dong tax te nga musal ñu ñaanal ñu sunu borom musal ñu ci pexeb seytaane musal na ci pexeb ëddina ak bakkan ak jigéen ñeeg lépp ba sunu liggéey ñu amee ko la kaw sunu njort ba seytaane du ko yàq ñoo ngi sàkk loolu nga ñaanal ñu ko te ñaanal ñu ñeewantu ñaanal ñu yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na te lépp xaj na ci te jamono tëre dina lool te ñu bëri ngi yàqule te loolu lépp seytaane ko waral kon nag ñu ñaanal la sëñ Tuubaa bëggoon ci ndaw sëñ Muhammadul Mustafa bëggoon ko ba tax mu sos Taif sa maam ju baax sa wajur waax bëggoon ko ba tax mu nekk fii di fi dundal lislaam yàlla nag ñu ñaanal loolu mu sax ci ñoon àddina ak àllaaxira ba duñ ko ñàkk benn yoon loolu la ñuy sàkku ci yow di borom mu yàggal la fi loolu moo nekkoon kàddu donge ñoo ngi jégg lu baax kàddu ñuy yëkkati sa kanam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon sëriñ bi nee mu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax a baax ci bis bi nga xam ne moog yéen yéen a ko bokk nee na mi ngi leen xamal ne xolam sedd na bu baax a baax a baax si yéen ndax liggéey bi rafet na lool ànd na itam ak yéene ju sell sell kon mi ngi leen xamal ne xolam sedd na baax a baax. di leen xamal ne liggéey bi moog yéen yéen a ko bokk day seenu mbokkum taalibe nekk seen jëwriñ rek. kon nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ko bu baax ndax ngërëm loolu ngi xam ne moo ngi ni sàkku nee na mi ngi leen koy ñaanal ngeen am ko nee na itam moo ngeen ñaanal ko moom itam mu am ngërëm loolu. ndax loolu rek nee na mooy ay yitteem moom rek moo ko ñor kon nee na xolam sedd na bu baax a baax. nee na itam ñaan yooyu ngeen fi ñaan yëpp am na si yaakaar ne suñu borom dañ ko nangu ndax ku nekk ci lu baax lu baax rek nga mën am waaw. kon nee na mi ngi ñaan suñu borom musal leen ci seytaan mi nga xam ne mooy yàqal waa ju baax yàlla na suñu borom musal. te defal leen xéwal yu bari bëri yoo xam ne da ngeen ci mën a liggéeyal sëriñ bi ak kàttan ak wér ak xel mu rafet mu sell suñ borom itam dool leen musal bu baax a baax dina xam ne daal xolam dafa sedd bu baax a baax li mu bëgg wax lépp it mënu ko wax waaye xolom sedd na jërë ngeen jëf sant na leen baax a baax kon waaw nee itam mu ngi sàkku ci yéen ci bis bi nga xam ne moom lay defal waajuram Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nee mi ngi sàkku ci yéen itam yéen a jëm ci am ngir ñaanal ko suñu borom def ko te defal leen ko yéen ñëpp ñu bokk ko kon ñu tàllal ñu ñëpp ñaan bisimilah wallaahu a'lam Allahumma jërëjëf kon mbokk yi naka noonu ñu ngi ci ziar yi nga xamante ne bi fu ne kilifa yi bàyyikoo na fa ngir jëw ci daaru islam dangi ci bis bi nga xamante ne bi sëriñ Moustapha Mbacke moo koy fàttaliku waajuram bu tedd wa di sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Moudou Moustapha gis ngeen waa kër sëriñ Fallou yi noonu di ñëw di indi seen ab ziar loolu wane na ne njaboot ak sëriñ Fallou gépp ñoom it am na njëg-yëgu ñëw ci bis bi ñooñu leen fi teewal ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal leen fi gis ngeen ko noonu ñu ngi ziyaare sëñ Modou Moustapha euh, kon rek bokk yi euh, ñoo ñu di ziyaare noonu ñooñu njabootuk sëriñ Fallou kon bis bi daal manees na ne njabootuk sëriñ Touba gi kenn desut euh, buñ tuddee xalifa bi nga xamante yabal na fi doom léegi ñëw ci njabootuk sëriñ Fallou kon mel na ni njabootuk sëriñ Touba gi kenn desut ñëpp ñëw nañ ci bis bi nga xamante ni bi ci ñi ñuy fàttaliku kenn ci njabootuk sëriñ Touba di sëriñ Fallou Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadou Moustapha jërëjëf mbokk euh, yi ginnaaw ziar yu am solo yooyu nag euh, ba ñu xewlu ba pare nag euh, bernde ba pare ci la Serigne Moustapha Mbacke ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalib bi yëpp gis ngeen ko noonu nag ñëw ci biir baas bi ku ne xam na ne Serigne Mbacke Abdourahmane moo war a def waxtaan yi moo tax bi bokk yëpp àndeek Serigne bi ñëw ci biir tànt bi ñu bokk commencé nag déglu Serigne Mbacke Abdourahmane mu indi waxtaanu am solo woo xamante ne bi waxtaan na ko fa ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجه لنا سوات دين فائقات ولتكفنا العدا معا والبايقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مسهبا بغير رد درنا لنستجم يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا قديم وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا قديم